téléspectateurs, internautes, bonjour et bienvenue ici au stade Alassane Djigo. L'objectif ou bien la raison de notre présence ici au stade Alassane Djigo, le club de Navetan Aïssé Tchossan qui a décidé de lancer sa propre académie dénommée Tchossan Academy. Raison de plus, Desport a décidé de faire une immersion ici au stade Alassane dugo d'aller prendre les organisateurs, d'aller prendre également les présidents pour qu'ils nous reviennent sur le but, l'objectif et les perspectives de cette académie. Si par exemple un jeune veut intégrer cette académie, comment il va faire pour avoir sa place ici à Tchossan Académie Allons tout de suite prendre le président de cette académie. amee ko ci nawetaan tey mu dem li nga xamne ke moy division régionale ngeen décider créer li nga xamne ke mom moy académie tudé ko cosaan académie ndax mën nga ñu revenir un peu ci le but de cette académie ak création bi lan moko ko wa comme ni nga waxé ñun dañu dañu ñëw dañu juddu fekk fi donc la création de cette ASC là. Nous doon joué en nawetaan comme nous depuis 74 nous avons suñu après la fusion donc des deux grandes entités Monaco et Ajax je rappelle de passage que nous vivons nos 50 ans donc cette année-ci on est en train de vivre donc les 50 ans de l'ASC en 2008 l'ASC euh, a donc les démarches nécessaires pour avoir donc ici une affiliation au niveau de la Ligue régionale de Dakar donc depuis 2008 on est en train de compétir au niveau du championnat régional au niveau du championnat donc Bobina est au niveau national maintenant avec la réforme du football le division régionale donc bi également pour 2024 on a senti donc un besoin de formation un besoin d'encadrement de cette jeunesse bien nga dans la localité que nous sommes au niveau de la banlieue particulièrement à Pikine Ouest donc dans à cet effet donc pourquoi pas donc ne pas mettre sur place n'est-ce pas ce centre là donc une académie bien nga quand même euh, football et formation éducative bien nga xamante nous quand même inculquer à ces jeunes là en tout cas des valeurs sportives des valeurs éducatives yoo quand même nous exister également exprimer par rapport à leur talent donc c'est ce qui pour que véritablement donc ñu donc cette académie là voilà. Kiwa Academy wax il les moyens financiers et également il faut gagner am locaux ndax jël ngeen yoyu tout en compte ba dem di lancer li nga xamné que Voilà comme tu dis comme comme ni ko rek donc on a l'habitude de dire que tout début est difficile tout début est difficile euh, suñu doogoon ba bëgg xaar ba moyens yépp dajé pour ñu mettre en place des académies donc mën na jël temps. Donc on s'est dit que donc on va démarrer avec les moyens du bord. Nous avons un terrain qui est entraîné chaque jour. Donc, nous avons également un établissement à côté euh, qui va nous prêter donc, ses locaux par rapport donc, à la formation éducative. Et le temps qu'on a véritablement, donc, les autres infrastructures, en tout cas, académie, le temps que donc, nous disposons. On est en train de chercher des partenaires, donc on est en discussion avec des partenaires pour voir donc, les futures collaborations par rapport à nous. Maintenant, vraiment nous commencer. Il va falloir commencer, n'est-ce pas, commencer SFI nest pour que véritablement donc ces autres aspects yoo moi en bonne et en due forme quand même dans le temps et on l'espère quand même que dans le moyen terme rien court terme mais dans le moyen terme automatiquement donc que en tout cas disposition est ñu pour que véritablement donc ñu carrément académique je rappelle également que nous sommes en relation en collaboration disons en partenariat avec la génération foot n'est-ce pas ñoon aussi tamit je pense que ku xam le président Mari Touré xam fi mu jaar ba tay fi génération foot egg nga xam ni xaarul en tout cas ba toute sa base infrastructurelle taxaw mu ver donc jëmmal génération foot donc nous aussi on s'inspire de ce de ce de ce de ce travail on s'inspire donc de ci limu def pour que véritablement donc nous aussi également au au niveau de Tissane vivier bi fi nek yépp potentialité fi nek yépp ressources humaines bi fi nek yépp quand ñu mën ko capitaliser pour que véritablement donc cette académie là mën mëna faire def long feu quoi inshallah tu vois la formation les ñuy légui léegi. Euh, ndax jot ngeen contacter yeneen entraîneurs yi ont formé xale ak entraîneurs yi nga été ne que entraîneur bon vous savez nous nous nous avons cette double mission cette double mission moi, euh, li nga xamante ne comme ni ñuy formé les yi ci suuf tamit ñi nga ils ont eu à pratiquer le football ñi nga xamante ñi ngi nekk dans le monde du football quand même ñu permettre leen ñu offrir également des cadres d'expression donc accompagner leen également dans leur formation et dans leur capacitation donc loolu aussi tamit ñu dafa am mission donc moi, le cosaan n'est qu'une ASMR. Nous sommes le seul club de la division régionale au niveau, du, au niveau de la commune de Pékin-Ouest. Donc, tous les techniciens, on va les, on va les regrouper dans ce projet-là pour que véritablement, donc, tous les techniciens dans le département, au niveau de l'arrondissement de, de Dagodan ou au niveau de la commune de Pékin-Ouest, nous apporter leur contribution pour que véritablement, donc, cette académie-là, donc, nous avons fait Parce que nous pour la seule zone géographique de Tchassan. Nous avons pour le département de Pékin de façon globale et la région de Cal et au niveau national également ci l'as accentué concernant le département de Pikine parce que si on Pikine fii académie yu fi très bëriwut ndax impliquer tous les autres Ou non leen di def ba intégrer les gens qui ont que bëgg nañu l'académie, à savoir les jeunes. waaw moom lance appel bob euh, je me répète li ñuy def pour du pour la zone de cosaan nous voulons apporter une contribution dans le football sénégalais n'est-ce pas et cette jeunesse là faut faire le football faut faire le jang n'est-ce pas, cette jeunesse doit être formée, elle doit être éduquée. Donc nous, on a senti le besoin quand même d'apporter une contribution par rapport à ça. N'est-ce pas Donc on koy lancé sur une zone bien définie la l'agglomération de Thiossane mais on koy adressé à tous les jeunes du département à tous les jeunes de la région à tous les jeunes du pays n'est-ce pas parce que jàpp nañ ni def dina dem dans le temps on sax ñun jeexital gi voilà dina fekk xëy ñu raccroché wala mais jàpp nañ ni exister un peu partout dans ce pays inshallah parce que quand Thiossane s'engage n'est-ce pas Thiossane et nous savons encore également les potentialités les ressources humaines ont xam te sous le vivier de Tchessan, sous le vivier du département bi nga xam te exploiter pour que véritablement donc ñu apporter contribution de façon efficace et efficiente pour que véritablement donc mu une contribution par rapport à ce football là. ku bëgg intégrer académie nan lay intégrer euh, le 77 657 0914 je pense que l'international Amassar mon le coordonnateur principal par rapport à tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui il est absent pour des raisons de voyage mais moi, il coordonne pratiquement tout nous qui sommes là également donc on va après donner des fiches de renseignement et naturellement donc la page Facebook de Tussan, les plateformes de Tussan également seront mises en, valeur également pour que véritablement donc permettre à tout le public nous ñu tous les éléments de réponses, tous les éléments nécessaires, toutes les informations nécessaires pour mener intégrer donc l'Académie Inch'Allah. C'est quoi les perspectives également et le ciblage des jeunes actuellement Waouh! bon, perspective, comme nous avons commencé de 6 à à 15 ans intervalle bobble. Des, def euh, comment dirais-je euh, poussin def benjamin def minime donc dañuy def initiation dañuy def formation n'est-ce pas pour que véritablement donc également l'académie mën le vivier par rapport aux différents clubs le Cosaan en est un euh, comment dire Aspigin en est un ak tous les clubs qui xam dans le département également cette académie doit être également le vivier par rapport aux talents qui xam te former donc dina initiation dina formation n'est-ce pas après 15 ans je pense que les gosses seront en même d'intégrer les clubs à travers la catégorie cadette après mën a continuer formation Cosaan Amna na cadet am junior Amna senior mais n'empêche les parents auront la latitude quand même après la formation nous choisir en tout cas le devenir de leur, en tout cas le, comment dire, le parcours de, leurs enfants. Mais quand même, tu sens également de nous offrir ce tremplin-là pour permettre aux jeunes déjà formés nous intégrer le club à travers ces différentes catégories, cadets, juniors, seniors, pour que véritablement nous aussi nous prospérer dans le milieu footballistique. Merci beaucoup, manager général. Allez, bien des choses. Merci à vous et c'est également sport. C'est l'occasion également pour nous de vous remercier, de vous féliciter, de vous encourager également. Parce que nous voyons et nous, nous suivons, n'est-ce pas, tout le travail que vous êtes en train d'abattre dans le football sénégalais, dans la promotion du football sénégalais donc ñu ngi leen ci sant ñu ngi leen ci gërëm di vraiment mu yokkal leen mu pour que véritablement ensemble ñun ñëpp yi nga xamante ne tey suñu dénominateur commun muy ce football là véritablement donc ñu porter pour que mu mën ñu jariñ mën ce pays là parce que quand même c'est un dénominateur commun c'est quelque chose bi n'est-ce pas donc quand le football va pratiquement je pense que voilà dina dina permettre voilà tension yu bëri ak

donc initiative bi initiative bu rafet la ñun ñëpp ñu ànd ci di ñaan yàlla ñu dugg ci ak bisimilah rahmaani rahim ak euh, am ci une réussite totale quoi allah waaw loolu daal moom la ñu kii daal mais gis naa ko euh, euh, kii kii par exemple initiative la daal bu kii daal rafet daal ah, waaw. ñu gis ni kii am ngeen benn club bu nekk Ligue 1 puis ndax tey jii ni da ngeen di signer partenariat ak club yooyu parce que bu ngeen génnee fii xale ñu mën a intégrer club boobu. waaw bon loolu nag moom aw ma lu may mais je sais ni peut-être euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy principaux responsables yi ñoom daañu xam après yan initiative lay jël quoi mais loolu tamit moo lu rafet la comme lépp si Pikine la rek foo ñu jéem a boole xol yeeg doole yëpp quoi pour que mën a avancer ko incha allah.

on doit rendre la euh, monnaie quoi bon donc je me suis dit que ni aduna moom daal donc euh, daal ñun daan ci jàpp à 100 pour cent incha allah quoi incha allah. c'est quoi le ci doomu Pikine ñu ñëw def seen euh, dugal seen loo ci li nga xam ne que moom mooy académie bi. bon ñu ngi lancé message ci doomu Pikine yëpp ñu ñu ñëw jàpp si parce que bu cosaan amee ndam c'est presque bon je peux dire que Pikine yëpp am dam donc dans la vie moom. boo gisee nit kuy def initiative bu baax rek nga nga ñëw nga jàpp ci daal donc je lance un appel à tous les Pikinois d'une manière générale ñu ñëw jàpp si quoi incha allah. tey jii nii club bi mi ngi li nga xam ne que moom mooy dem créer li nga xam ne que mooy propre académie om en tant que ancien dirigeant ancien entraîneur du club nan nga gisee projet boobu et quels sont les objectifs de ce projet. waaw xam nga projet boobu projet bu yàgg lool parce que ñaan ñi nga xam ne ñoo muy ndam si yàlla Modou ndam si yàlla Samba Sarr ñoom yàgg nañoo initier lii mais sunu borom xëy na dañ ko ñoom dañ ko mëbëtoon mais xëy na yàlla dafa tuddoon ni ñii ñoo koy eh, ñii ñoo koy réglé mais ñoom lu ñu yàgg projeté la te ba tey affaire bi nekk mais lu war a nekk la parce que footballkat yi xale yi dañoo bari ci dëkk bi. surtout gox bi nga xam ne fa la cosaan nekk fa la dëkke gazel dëkk fa jekk peñ dëkk fa dëkk fa yooyu yëpp waroon na mën a fexe ñu am académie bi bu yàgg comme nag yàlla léegi la koy doog a projeté léegi la koy doog a sotti il faudra que ñun ñëpp ñi nga xam ne ñoo ci nekk autour alentour ñun techniciens yi ñun ñëpp ñu jàpp ci ñu jàpp ci pour mën a dimbali xale yi parce que ñun biñ ci tolloo dañu doon dimbali te gannaaw yàlla ak yontu bi Samba Sarr ak Mor Cissé lu ne bi taxaw war nañ cee jàpp sax yàlla ak ñoo ñaar ñooñu man loolu la gisee quoi. war ngeen ci jàpp ngay tudd tamit yi nga xam ne kem ñoom ñooy xale yi est-ce que tey jii nii nii da ngeen ciblé U9 ak U15 au de ces deux catégories là ndax yéen a ngi vigé euh, junior ba ci senior. waaw junior ba ci bi moom mooy équipe bu division régionale bi. parce que man sama abse man man su ma su ma sama projet man dama ne équipe bi na joge ci palier boobu jóge division régionale au moins mu mën a dem division nationale au moins bu fa demee am na yu bari yoo xam ne dina mën a dimbali académie parce que boo xoolee yenn académie ay Africa Foot ay yenn ay ay ay Lusitana yooyu yëpp noonu lañu démarré ay petit petit catégorie lañ démarré ñu am objectif yéegal ay junior yéegal ay cadet di ba dem senior ba pourquoi pas ñu fi coupe du Sénégal tey équipe bi war na mën a toll foofu Sénégal li ko séex moom ñoo bari te ñëpp mënuñu fubal AS Pikine ñëpp mënuñu fubal AS Pikine il faudra que ñu partager ko ñeneen ñi nga xam ne mënuñu fubal AS Pikine ñu reversé wu dem dem dem cosaan FC ñëpp jàpp ci. man je suis prêt pour engager ñun ñëpp ñu jàpp ci pour que équipe bi jógee ci division boobu mën na ci division euh, nationale. ñu gis académie dañu bëri fii lool est-ce que tey vous avez pris en compte la concurrence de ces académies. ah mais pourquoi pas pourquoi pas parce que boo xoolee fii au niveau Pikine amul académie ah benn académie bii ñu installé nii moom moo fi nekk à part à part à part à part euh, ñoom li ñu installé nii man gisuma fi beneen académie bu ñoo xam ne installé mais pourquoi pas yow mi nga xam ne yaa njëkk a démarré yàlla boo ci jàppee rek yàlla dimbali la ci. te ñun ñëpp dinañ ci jàpp am na yeneen d'autres techniciens yoo xam ne ñu ngi ci moo venir ñëpp jàpp ci ñu lan mooy justifier fii sa présence fii tey. Euh, sama présence lan moo ko waral mooy sama doom moo woote. te doom ju baax la doom ju am yëg la doom ju social la moo tax moo waral sama présence fii. ñu gis ne ki cosaan club nawetaan lañ ko xamee woon tey mi ngi li nga xam ne que moom mooy division régionale ngeen décidé lancer seen propre académie ndax jigéen yi dinañ gis seen bopp ci académie wala dinañu gunge ñi nga xam ne que ñoom ñooy seen doom ci académie bi. incha allah parce que cosaan liñ ko xamee woon dañuy sant yàlla rek comme dem na ba tollu fii dañuy ñaan yàlla mu gën a jëm kanam te je pense que ñëpp dinañ ci gis seen bopp daal bu neexee suñ borom yooyu. mooy message bi nga xam ne da ngay sa morom jigéen ñi suñu yaay ci kër gi ñu ñëw jàpp ci projet bi parce que boo xoolee euh, commune Pikine amul benn académie yéen ngeen décidé lancé loolu. waaw dañ leen di wax rek nañu jóg rek jàppale seen doom yi te xam ni bu ñu jógul seen doom dugal leen ci lu mel nii benn saay-saay moo leen di fëkk rek jaarale leen ci beneen yoon te yoon boobu du yoon boo xamante ne baax na ci parents d'élèves ci nit ñi ci waajur yi donc bu ñu gisee kuy def lu mel nii dañuy jóg rek jàppale leen te xam ne mooy lu ñu war daal. Moustapha nan nga gisee projet bi boo xoolee. commune Pikine amul académie ñom ñi décidé lancer euh, académie bi nan nga gissé projet bi d'abord. wa c'est important que Pikine ñu amat benen vision ci football parce que football buñ ko waxé base la base bi moy xalé yi xalé yi euh, tey li ñu wara jang suñ ko jangul buñ yégué ci kaw mo waral mu bari ay lacunes da ngay sétane championnat yi des fois jour yi di am problème contrôle problème mouvement problème information donc lolu su ko waa Pikine euh, défait c'est pour jàppale les yi la pour que ñu am formation bu baax donner lépp formation la formation moo que ci lépp boo amee formation bu baax foo dem ci àdduna bi di nga jouer donc nous xam naa vision boobu la am ci football moi tax tey ñu taxawal académie bi aussi aussi cosaan nekk na équipe boo xamante ni fi Pikine équipe référence la. cosaan du équipe bu ndaw donc cosaan sax mën naa ne xaw nañoo yéex a def lii yaakaar naa ne tey buñ ko defoon bu yàgg cosaan tey war na gën a mën a weesu fii parce que tey fi turam toll ci football cosaan yaakaar naa ne tey jii bu taxawalee lii war na ko taxaw war na ko taxawal te c'est très important que ñu ñëw accompagner leen jàppale leen parce que initiative la boo xamante ne nii bu ko waa Pikine ñëpp jàppalee incha allah tey dinañ ci gis suñuy doom ak suñuy jarbaat ñun dinañ ci gis suñu bopp parce que tey ne fu ñuy yar mooy

Mustafa, yong am legi benn postir bu rawatina wuy di yëngu ci wàllum football maanaam consultant est ce que tey jii nii nii gars nañ la xaar sa président ci biir bi nga porté li nga xam ke moom sa savoir faire. non man moom bon lépp luñ ma woo ci li nga xamante ni moom mooy jëmale footballu Sénégal kanam rawatina fii Pikine man man dama ci dem ba mu jeex tàkk parce que tamit ñu suñu passion football football la gëm ci la ñuy dund suñu liggéey.

waaw euh, message bi may wax rek mooy que bon ñu xam ne lii bu ko waa cosaan defee nekkul rek euh, dañ koy yemale ci koñu cosaan mais képp koo xamante ni dëkk na pikin rek am nga fi wàll donc yaakaar naa ne bu ñu jàppoo nekk benn liggéey ku ci nekk dugal ci loxoom rek donc académie bi dina nekk académie boo xam ni bon nit ñi dinañ ko xam te académie bi dina jëm ci kanam c'est pas pel que nag euh, def benn académie nii rek après jeex na noonoo il faut que xale yi am formation bu baax ba pare taxawal taxawal académie rek yaakaar naa ni loolu yomb na mais man li ma leen di ñaax mooy na formation bi baax ñu évaluer booy di leen yar ci côté jàng bi tamit booy ñu gën ci insister xale am na foo xam ne bu fa tolloo dafa war a jàng jàngat football ñoo ànd jàngat football ñoo ànd donc man ci message boobu lay lancé ñu gën a veille ci loolu comme académie la ñu jàppale xale yi di saytu seen jàng ba pare école. ba paré ñu bolé ko football lool dina gëna yomb ci xalé yi te dina dimbali xalé yi ëllëg parce que ñëpp mënuñu nekk ay professionnel donc bo nekkul euh, footballeur bo nekkul footballeur professionnel après mën nga nekk directeur entreprise wala nga nekk leneen donc dal nañu gëna a incité ki jàng bi c'est très important. ami téléspectateur internautes des sports lii lañ leen andi woon fi nga xam ne que moom mooy stade Alassane Djigo bu Pikine cosaan nekk club bi nga xam ne que nawetaan lañ ko xamee woon mu dem bi di jouer li nga xam ne que moom mooy division régionale tey mu décidé créer li nga xamné ne mom moy sa propre académie ñom wa académie euh, cosaan ñi ngi lancé appel au niveau des autorités pikinoises au niveau de la population pikinoise ndax ñi mëna a japp ci li nga xamné ne mom moy sen académie bi ñu lancé tey di leen di jox di dajé ci benen terrain ci benen club ci benen numéro bi nga xamné ne mom moy rendez-vous avec des sports ci yenen stade ci ngeen jëf ba Inch'Allah, c'était Shérif Aïdar Sidi accompagné de son cadre Maguette Khan. merci beaucoup.